sëriñ Modou Absa Fall sëriñ Modou sa Fall mi ngi ganee àdduna ci atum 1855 ci dëkk bii di Ngiig Fall sëriñ Modou Absa Fall doom la ci sëriñ Matar Fall Kumba Galo ak soxna Absa Gueye soxna sa Gueye mii ci ngëyeenuk maa Gueye la jóge sëriñ Modou Absa Fall amul kenn nag kum bokkal kii di soxna Absa Gueye waaye am na ay doomu baay moom it sëtub sëriñ Ngiig Fall la moom mii di sëriñ Modou Absa Fall nekk na juróom-ñetteelu xalifa sëriñ Njiig Fall mu mag ma waaye waajuram toogul xalifa sëriñ Njiig Fall sëriñ Modou Absa Fall bi matee dal lii di alxuraanul karim jànge na ci ëttub waajuram di sëriñ Mataar Fall Kumba Galo moo ko jàngal lii di alxuraan ak bàyyi taxam bii ñuy wax sëriñ Njiig Mayoro Fall sene ba ñaan ginnaaw bi nag jóge na fii di njiig faal dem ci dëkk bu ñuy wax kër manta jóob kër manta jóob googu sax sëriñ manta jóob moo ko fa doon jàngal moom sëriñ moodu habsa faal mi fekkante na fa ak sëriñ muhammadu lamin gay firdawsi jot nañ fa bokk daara génn kóllëre gi ñu am sax laata ñuy ñëw ci seexul xaddiim foofa la tàmbalee ci dëkk boobu di kër manta jóob waaye yàggu fa mu waat njiig faal wéyal lii di njàngum alxuraanam kon mën nañu wax ni lii du njàngum alxuraan ak xam-xam daal ci ñaari waajuram yii la ko defee muy sëriñ Matar Fall Kumba Gallo mi ko jur ak sëriñ njiig ma yoro Fall sene ba mii di bàyyi taxam sëriñ ma njiig yoro Fall sene bañaan ñaan mii daaray alxuraan ju mag la yoroon ci dëkk bii di njiig Fall ba tax na boroom xam-xam yu bare baree bari ci biir réew mi jaar nañ ci dëkk bii di njiig Fall te moom mii moo leen jàngal lii di alxuraanul karim wala lii di xam-xam fa la nekk di wéyal lii di am njàngam ci dëkku maamam bii di njiig faal ci kër juróom yi ba ci atum 1883 la sëriñ tubaa seexul xadiim jóge mbàkke kajoor njëkk a ñëw ci dëkk boobu di njiig faal doon seet si bàyyi taxu sëriñ moodu absa faal mi booba sëriñ moodu absa faal ma ngi ca daara jay jàng alxuraanul karim ay atam ñu ngi ko doon xayma ci ñaar fukki at ak juróom ñett sëriñ Touba ñëw fa di seetsi kii di sëriñ Njiig ma yoro Fall Sene Bañaan mi ndax neewoon naa leen daara jooju boroomi xam-xam wala ñu amul tur ci biir réew mi jaar nañ fa ba fa seexul xaddim di ñëw ñii la fekkoon ca daara ja ñoo xam ne ni mën nañ leen a ràññee sëriñ Daam Juuf mooy waajuru sëriñ Mbàkki Juuf bu njaareem sëriñ ñoom baraan loo mooy waajuru sëriñ Mataax Binta loo sëriñ njomre baraan loo mi sax nee na keroog la njëkk a gis kii di seexul xaddiim kiw melokaan ak jëmmu seexul xaddiim yéem ko lool ak it kii di yoro Sàll di waajuru sëriñ Abbas Sàll ak kii di sëriñ Moodu sa Fall mii ñuy waxtaane lu ko jiitu fekkoon na nag ñeneen nekkoon ca daara ja waaye booba fekk nañu jàng ba jóge fa ku mel ne sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ak kii di maam Cheikh El Hadji Malick Sy bàyyi taxu sëriñ Moodu Absa Fall mi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim way na ko muy sëriñ Njiig Faal ma yoro Bañaan mi bàyyi tëx la ci sëriñ Moodu Habsa Faal Seexul Xaddiim way na ko ñu teew lu way yi fawran wa tabdiilan shawxin bara kabdi إلى ما يرميه وفرق من بعدي ببيت يتيم مونس قلبه بعدي kii di Serigne Njiig Fall ma yoro sene ba ñaan mi moom itam delloo waat na ay way seexul xaddiim ngir di ko ci njukkalaat ci way yu mu ko way ñu teewlu lii di tontu way ya busra lana inna baada suhli qad xasala lama atana alxabibu raakibul jamala أعني محمد من يدي متاعة مولاه الكريم لكي ينال ما أملا way yooyu ngeen dégg rek day firndeel ne kii di sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim demoon na Njiig Faal ngir seeti bàyyi taxu sëriñ Moodu sa Faal mii ca at moomu di atum 1883 ba fa Seexul Xaddiim ñëwee ci Njiig ci bàyyi taxu sëriñ Modou Absa Fall mi ngir di ko seet si di sëriñ Mayoro Fall sane ba ñaan mi sëriñ Modou Absa Fall nag bàyyi woon na xel bu baax a baax jëmm ju tedd jii di sëriñ Touba Seexul Xaddiim ba tax na topp na ko bàyyi ko xel bu baax a baax sëriñ Touba am fi ay takk-takk ak lii di tubaab bi ba ñu yóbbu ko ci géej gi ci réew mii di Gabon ba mu def fa lu tollu juróom ñaari at ak lu topp bi Seexul Xaddiim ñibbisee ci atu 1902 ci atu 1903 nag jàpp 1904 bi Seexul Xaddiim demaat arrêté gànnaar ci résidence surveillée baneen bu ko tubaab bi yóbbu woon foofa la sëriñ Modou ab Fall mi doo ko dem gànnaar nag ngir jaayanteeg sëriñ Touba Seexul Xaddiim ci dëkk bii di xumaag la fekk sëriñ Touba Seexul Xaddiim bi mu ñëwee gànnaar ba jub dëkk bii di xumaag nag sëriñ Touba Seexul Xaddiim wax na ay yoon ndaw li jóge njiig faal egsi na waaw wala déet baamtu na ko ay yooni yoon ginnaaw bi nag la wax kii di sëriñ Cheikh Khary ne ko demal gatandul ma ndaw li jóge njiig faal sëriñ Cheikh Khary mi mooy nijaayu Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke ibnu sëriñ tuuba Seexul Xaddiim keroog bi sëriñ Modou Absa Fall egsee ci gànnaar ba nuyoonteeg ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim dafa jël loxoom ba teg ko ca kawaruk sëriñ Njiig Fall ga daa di cay ñaan loola waral na sëriñ Modou Absa Fall ba ni mu génnee àdduna nanguwuta watu ndax di barke lu ci boppam bu sëriñ Touba Seexul Xaddiim teg loxoom kon ci diiru fan weeri at ak juróom sëriñ Modou Absa Fall am na ko yum watuwut ndax sabab bi mooy loolu keroog ba muy dem ànd naag ak juróom juróom ñeent ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ baraan ndaak sar ak ku ñuy wax sëriñ tëgg ñang bi ñu demee gànnaar fukki weer ak juróom-ñett lañ def foofu ci gànnaar ci sëriñ tuubaa seexul xaddiim ginnaaw bi nag la jóge gànnaar ak ñooñu mu àndaloon ñëwaat ci dëkk bi mu jóge woon di njiig faal bi mu ñëwee ca dëkk ba la ànd tuuti wut fa nag péncum boppam ñu koy wax kër sëriñ njiig faal wala péncum sëriñ njiig faal nekk fa di liggéey ak ñi bëgg a ànd ak moom ngir sëriñ tuubaa seexul xaddiim bi sëriñ tubaa seexul xadim jógee gànnaar ñëw ci yéen dem na fa ay yooni yoon di ko ziyaare ji am na ci boo xam ne nii nag kii di sëriñ baara gay faati mbóoj la fa àndaloon ginnaaw ci yéen jolof ñëw na njaareem nag fekk si sëriñ tuubaa seexul xadim ci dëkk boobu di njaareem di ko fa ziyaare si lu bare a bari bu ñëwee nag dana fa def sax lu tollook ñeenti weer laata muy delluwaat foofu di njiig faal e kii di sëriñ moodu absa faal su masaa ñëw njaareem noppi danaan ko demal dalal sa mbokk ma sëriñ Siré Lo kon kër sëriñ Siré Lo sànnoo si ci njaareem la daa dal su masaa ñëw njaareem jóge njiig faal ñii bokk na ci ñim daa àndal ku ñuy wax sëriñ Modou Guèye Sow ak sëriñ du jëmmu ñas mi mujj gi sax sëriñ Touba Seexul Xaddiim wutal na kër kii di sëriñ Modou Absa Fall ci njaareem waaye kër sëriñ Modou Absa Fall googu taalibeem bii di sëriñ Modou jëmmu ñas la ko mujj rafaatale kon loolu moo ci kër gu mag ci njaareem bokkoon na itam ci taalibe yi sëriñ tuubaa seexul xaddiim doyloo woon moom sëriñ Moodu Absa Faal mi ndax sëriñub laslaar la woon dadaa ñaan dolli ci daana def saabu bu xëyee mook sëriñ Siré Lo ñu ñëw ziyaare si sëriñ tuubaa seexul xaddiim ci kër gu mag sëriñ tuubaa attaayal leen wax nañ ne ñeenti baraada sëriñ tuubaa daana leen ko tàngalal ñoom ñaar lii di añitim seexul xaddiim moo ko warloonte woon ak moom bëccëg gu jot ku ñuy wax soxna Awa mën nañ koo jàppe woon bëkk néeg ci kër gu mag gi moo daa indi lii di ndab li seexul xaddim itim daa na ko ñaanloo moom sëriñ Modou Absa Fall mii kon kii di sëriñ Modou Absa Fall ku yéeme la woon yéeme googu sax tax na kii di sëriñ Modou Absa Fall yoroon ay taalibe junne ba tax na taalibe yooyu sax lu xew ca kër ga dañ leen di sedd añ ak reer lii di kafe itam dañ leen ko yit foofu ñu nekk ci njiig faal ci diggante ñaari dëkk yi di njiig ak mbéy ci xur fa nekk juróom ñaari Dakar ña fa foofu la taalibey sëriñ Modou Absa Fall yi nekk di ay junne firnde bi rek mooy am na benn bis ngénte xew ca kër ga waaye lii di junne yi ñu fàtte leen yit seen wàll ca ngénte la keroog lii di liir ba dañ koo sàdd ak waajuru liir ba ba liir ba sax dafa mujj génn lii di àdduna doomu sëriñ Modou Absa Fall bi di soxna Binta Fall ne leen il faut ngeen xam ne kër gi du yéen rek yéen a fi nekk ndax lii di taalibe yooyu dañ leen a war a jox seen wàll ndax ci njaboot gi lañu bokk léeg-léeg itim ci njiig faal googu ñu teg fa lii di kafteeru kafe wala ab añ waaye nees tuut mu jeex te donga yi duñu suur donga itim doon nañ ko ñaxtu di ko jàmbat waaye doomu sëriñ Mor Absa Faal bi di soxna Binta Faal itim même wax jooju la leen wax kon mu mel ni sëriñ Modou Absa Faal dëkk bu yéeme la yor ak taalibe yu yéeme te nekk ci juróom-ñaari daqaar yooyu lii ñu leen wax nag ba jamono jii ñuy nga fa lii di seenub añ ak seenub reer ak kafe gu ñuy naan du manki saa su ne ba ci tey jii sax yóbbul nañ leen ko sëriñ Moodu Absa Fall ab liggéeyam mën nañ cee ràññee lu baree bari ndax lii di kër gu mag gi yeesal na ko ñaari yoon ndax seexul xaddiim liggéeyuloo woon na ko ko sëriñ tubaa seexul xaddiim itam boole woon na ko Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke mi ab taawam ngir ñu fasante ak kóllëre ndax lu jiitu loolu itam am nañu mbokk Cheikh Mamadou Moustapha itam doyloo woon na jëmm ji sëriñ Moodu na daana yónni kii di sëriñ Habibou Dieng ci moom sëriñ Habibou Dieng mii sax rakkam ju ñuy wax soxna Anta Balla Dieng kii di sëriñ Modou Absa Fall yoroon na ko wala dencoon na ko comme soxna lii di liggéeyub jumaa ji itam su masaa ñëw daana fi def weeru yàlla wala weer ak i fan kër Cheikh Massamba Mbacké mii rakku sëriñ Touba Seexul Xaddim foofa la daa dal lii di kër Cheikh Modou Moustapha gisasoon rikkitim ci jumaa ji te jamono ji ñu koy wax kër sëriñ ko ci nekkinu Cheikh Modou Moustapha ndax moo ko ci joxoon ndigal kii di sëriñ Modou Absa Fall def na liggéey yu baree bari ci ndigalul sëriñ Touba Seexul Xaddim ak kii di Cheikh Modou Moustapha Mbacke ci diggante njaareem ak dëkk bu sell bii di Touba su masaa ñëw ci dëkk bu sell bii di Touba taalibeem bii di Matar Ndiaye lay àndal Matar Ndiaye moomu sax mujjoon na ko baax kii di cheikh Modou Moustapha Mbacke ngir mu nekk taalibeem bu des ci jumaa ji di ànd ak cheikh Modou Moustapha ci liggéey bi ñu daa ko wooye Modou Matar Ndiaye mbuluñ ak kii di sëriñ Modou Diaw Tebbi jaw kon ñaari taalibe yi ñoo nekkoon ci jumaa ji di liggéey dëkk boobu di Njiig Faal kii di sëriñ Modou Absa Faal kilifa yu bari fekk nañ ko fa ñu ràññee ci cheikh Massamba Mbacke nekk rakk ci sëriñ Touba Seexul Xaddiim ak kii di sëriñ Basiiru Mbacke ibnu sëriñ Touba Seexul Xaddiim ñaari sëti sëriñ Touba Seexul Xaddiim sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ak sëriñ mbàkke madina ñëw nañ fa ay yoon ci seen ndigalul waajur cheikh mouhamadou moustapha mbàkke sëriñ mataar pintaloo itim nekkoon na ko am relation ak sëriñ mor absa fall sëriñ mor anta ayib loo itim ca kër njuga nekkoon na itim ku wóolëranteeg sëriñ moodu absa faal mi ñoom ñaar ñi kii di sëriñ moodu absa faal daana leen gane si su masaa jógee kër sëriñ mataar bintaloo kër sëriñ moor anta ayib loo mii lay dem ca kër njuga rawatina seexub sëriñ tuuba bii di maam cheikh ibrahima faal sëriñ baara gay mook sëriñ moodu absa faal daanañ bokk benn lal bu ñuy fanaan ndaxu kóllëre kii di sëriñ moodu absa faal sanc na nag ay daaray daara ci biir daara yooyu am na ci yoo xam ne nii léegi sax ay dëkk la te njabootam gi nekk fa ñu ràññee ci daara yi nekk ci région de Louga ci Njàmbur muy daara ju ñuy wax yaxa ñay am na daara ju ñuy wax mboso am na daara ju ñuy wax daaru faal ñetti daara yi ci Njàmbur lañu nekk am na yeneen daara yu nekk ci Saalum Jóob daaray mbuluñ daaray mbos càlle ak daara ji ñuy wax njiig njaago ci bawal itam am na daara ju ñuy wax du yooli gosaas daara yi nekkoon na fa di liggéeyal sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ak taawam di cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sëriñ Modou Absa Fall mi ngi génn àdduna bisub ba ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1359 ci gàddaay gi ba ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1359 ci gàddaay gi ca dëkku maamam bi wala ca péncum boppam ma mu sanc di njiig faal dëppook muy mercredi 3 juillet 1940 sëriñ Touba mu dul Moustapha Mbacke yónni taalibeem bii di sëriñ Baara Gaye Faati Mbocc ngir mu dem taxawu taalibeeb Seexul Xaddim ba di sëriñ Modou Absa Fall ñu jébbal ko boroomam ci dëkku maamam boobu di Njiig Fall boole ko seede yu am solo yu Cheikh Modou Moustapha Mbacke def ci jëmm jooju sëriñ Modou Absa Fall keroog bi mu làqoo ci ngoon gi biñ koy déjal ci ngoon gi ngir di ko saraxal dañoo jékki-jékki rek poussière bu bare bare bare bare am ci ngoon gi ñépp daw fatu ci biir néeg yi ne suut lii di pënd ba muri ñu gis ay ndab yoo xam ne ni façon xeetu togg wu ne manga ca xalifaam bii di sëriñ Modou Assane Fall daan ne mën nañoo jëfandikoo lii di lekk yi nit ñi barkeelu ca ba noppi ne suut pënd bu bari amaat nit ñi dawaat fatuwaat ci biir néeg yi ñu toogaat tuuti pënd ba daa di muri waat nit ñi génnaat gisuñu benn ndab ci jataay bi ci la nag xalifaam Assane Fall mi ko njëkk a wuutu kenn ci ñi mu dencoon di soxna soo xam ne nii maanaam junne la moo doon indi lii di ay toggam ci bisu sarax si wala moo doon dëjal kii di sëriñ muudu ab safaal lii moom xew na keroog bi ñuy ñaanal kii di sëriñ muudu ab safaal ci dëkkam boobu di njiig faal ba tey taalibeem bii di Matar Njaay mbuluñ toog na sëriñ muudu ab safaal toog sëriñ muudu ab safaal ne ko Matar Njaay ñeme nga lii di junne mu ne ko waaw mu gaaw mu ne ko déedéet sëriñ Modou Absa Fall woo kenn ci junne yi mu daa di ñëw sëriñ Mataar Njaay muluñ ñi nee na moom jàppoon na ci sikki nub junne ndax sëriñam ba moo ko wan mbokkum taalibeem ba lii di juróom ñaari turi junne yi itim ku leen bëgg a xam seeni tur soo demee ci njaboot gi ñu wax la seeni tur ca xur wañ nekkit ku dem njiig faal fekk leen fa sëriñ Modou Absa Fall ay xalifaam nii la tëdde sëriñ moodo Assane Fall moo ko wutu ci atu ba atu 1945 juróomi at la toog xalifa waajuram ñaareelu xalifa sëriñ Moodu Absa sa mooy sëriñ Mayoro Fall moo ko wutu ci atum 1945 ba atum 1955 fukki at la toog xalifa waajuram wi ñetteelu xalifa sëriñ Moodu Absa Fall mooy sëriñ Bamba Fall moo ko wutu ci atum 1955 ba atum 1959 ñeenti at la toog xalifa waajuram ñeenteelu xalifa sëriñ Moodu Absa Fall mooy sëriñ Cheikh Fall Mariama Guèye moo ko wutu ci atum ba atum 1966 juróom-ñaari at la toog xalifa waajuram doomi sëriñ Moodu Absa Faal yi jeex takk ci kaw suuf sët yi nag tàmbulee wuutu seen maam ja sët bi njëkk a wuutu maamam di sëriñ Moodu Mbeen Faal moo ko wuutu ci atu 1966 ba 2006 ñeent fukki at la toog toogaayub maamam bi ginnaaw sëriñ Moodu mbenn Faal juróom benneelu xalifa sëriñ Moodu Absa Faal nag mooy ñaareelu sëtam bi di sëriñ Mayoro Faal Sam Sam moo ko wuutu ba nëgëni ñu koy ñaanal mu sut waajuram wa aw fan ak yaakaar ji waajuram wi amoon ca seexul xaddiim te seexul xaddiim amoon ko tem liggéeyal ko seexul xaddiim yal na ci yàlla jaarale mbooleem askanu sëriñ njiig faal gi ak mboolem jullit yi taxawu leen te yiir leen kër googu di kër sëriñ Moodu Absa Faal am na nag li ñu tudde ay jëwriñ jëwriñ ji ñu njëkk a am mooy sëriñ Maxtaar Faal ibnu sëriñ njiig faal Moodu Absa moo fi nekk 1940 ba 1945 1945 ba atum 1966 ñaareelul jëwriñu kër googu mooy ku ñuy wax sëriñ Moustapha Fall Ndiig moo fi nekk 1966 ba 2005 fanweeri at ak juróom-ñeent la nekk jëwriñ ñetteelu jëwriñ ji nag mooy sëriñ Fall Ndiig Touba Daarul Xuddoos moo fi nekk 2006 ba nëgëni kii di sëriñ Modou sa Fall am na nag bis bu ñu koy fàttaliku muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rakkaat ji gàmmu di bis bi mu génnee lii di àdduna ñu ngi koy fàttalikoo ci dëkk bi mu sancaloon boppam wala ci pénc mim sancaloon boppam di njiig faal ñuy ñaanal njabootam gim fi bàyyi suñ borom teg leen loxo ci dara jey kam doon liggéeyal di sëriñ tuuba seexul xaddiim amiin seexul xaddiim amiin seexul xaddiim